merci monsieur président ñu ngi lay nuyu bu baax di am yaakaar nag fii nga toog ci kaw quand bi nga nga voté budget bi defe naa ni doo jàkkaarloog sénégalais yi ñuy wax njàng mu kawe mi nga présider ko te doo ko vote monsieur ministre ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la félicité ci sa confiance renouvelée bi président am ci yow ba falaat la di nuyu monsieur le ministre des finances et du di nuyu monsieur le ministre du travail chargé des institutions le directeur général di budget nga may ma aussi ma nuyu monsieur le président mon frère et ami le directeur Lamane Mbaye maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam nuyu di nuyu le directeur général du CROUS de Bambey, M. Moustapha Gueye, fait un excellent travail dans la région de Djurbel et dans l'université. Le directeur du COUD, M. Maguette koy Mankoinu, également du NUNIEP. Monsieur le ministre, dama bëgg ñu taxaw tuuti ci floraison école yi ak institut privé yi bari na trop foo tourné ci Ndakaaru école la boo xam ne day former dans l'enseignement supérieur je crois que war nañu seetaat ba xam école yooyu diplôme yi ñuy joxe te tey boo ko bëggoon a utiliser ci recrutement bu demee ni fonction publique soit du ko reconnaitre wala dañuy dem commission d'équivalence te commission boobu liggéeyam gaawut ma gis aussi que tey boo xoolee surtout médecine bi nga xam ni c'était très encadré am nañ ay université de médecine Saint Christophe mu ngi fi privé la Amadou Hampâté Ba également privé la mais ñooñu diplôme yi nga xam ne dañu koy délivrer d'abord étudiants yi permettre ñu leen ñu def le concours d'internat mais également seen diplôme yooyu kañ la ñu koy reconnaître loolu aussi am na solo war nañ ko seetaan monsieur le ministre la recherche elle est importante et c'est pourquoi je voulais demander la part de la recherche dans le budget de l'enseignement supérieur kooku aussi war nañu ko seetaat te bu doyul ñu renforcé ko parce que recherche moom dafa am solo lool ci am réew monsieur le sama collègue bi léegi wax na ko bi muy cité kudd yi crous yi li ñu am ci budget bi mu yegsee ci Bambey tuddul dara ndax Bambey dafa amul wala la am dafa tuuti te bu ñu xoolee ci université yi tey di point de vue effectif bu dul dakaar benn ëpp ci Bambey kon Bambey war nañ ko beral cër jox ko la war a moom mais également en fonction ci importance am ak région bi nga xam ni nekk na ci aussi ñu xool ko di rafetlu également taxaw bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw l'université Cheikh Ahmadou Bamba di wax ni lépp lu ñu ci def rek loola doyul parce que université la boo xam ni am na avenir ca njaboot gi nga xam ne ñoo ci war a jàng ñu am importance la ñu monsieur le ministre université de dakaar université de dakaar defe naa ni état Sénégal amul problème ak université ak étudiants yi le président Macky Sall amul problème ak étudiants yi parce que boo yokkee université yi créé ay ISEP créé ay ENO ku ci nekk fa nga dëkk nga am foo jànge boo amee bac wëlbatiku dina jaay ndékki fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñëpp am bourse wala ñu am edd defe naa ni kooku amul problème ak étudiant waaye ñi nga xam ni nag dañuy dugg ci université yi di toj kaar yi di toj amphithéâtre yi di toj laboratoire yi mais ñooñ ñoo am problème ak étudiants yi loolu nag Sénégal yëpp xam nañu ko nit ki nag dëmm du la rey jaale la Sénégalais yi xam nañ li fa nekk lépp yéen ko def ba ko defee nag kenn waxu leen dara waaye mbee nag bàyyi leen ñu defar suñu defaree ba étudiants yi nekkaat ci yenn defar bu nekkaat ci condition yu baax de sécurité su boobaa université dana ubbi ñëpp yàkkamti université ubbi mais su mënta ubbi physiquement it nañu teg ay mécanismes yoo xam ne dinañ permettre étudiants yi ñu jàng parce que am na étudiants yoo xam ni wax nañ ma tey ni dañu leen yónnee message ni leen la cadre ngeen war a def examen te ci biir cours yooyu xam ni waroon nañu ko def ci période bi nga xam ne yàqkat yi duggoon nañ fa yàq am na yu bari yoo xam ne jànguñu ko loolu itam nañ ko seetaat s'il faut reprendre les cours pour quelque temps si c'est virtuel ah ou télé télé télécours ñu def ko bala ñoo def examen yooyu dana baax ci ñoom am na ku ko wax sànq ni l'université a toujours été un bastion de contestation je suis tout à fait d'accord nous sommes par là mais l'université n'a jamais été un terrain de prédilection des partis qui n'ont pas d'assises politiques je crois que politique da nga war a dem ci bitti politique yi mais jël université parce que ña ko yàq ñi ca ëpp duñu ay étudiants mais ay étudiants ñoo leen héberger la veille et l'avant-veille ñu dem ci amphi yi xëy yàq lépp ñu mobiliser la woon ñooña lañu ñu bëggoon ak la am bokkul suñu ko sañoon tey jii ba nëgëni si Macky Sall du fi nekk régime Benno Bokk Yaakaar du fi nekk mais nag échoué nañ cee firnde ji mooy da nga daan woote ñu di la wuyu léegi bu wootee duñ la wuyu waaye yow war ngaa seetaat sa bopp war ngaa seetaat sa bopp li am solo daal moom ñu ngi lay féliciter di la encourager di wax monsieur le ministre des finances lépp loo xam ne def nga ko ci enseignement supérieur def ko ci éducation nationale et formation professionnelle loola yàquloo ko parce que réew moom da ngay former sa jeunesse waaye nag di yàq jeunesse bi di leen saagaloo di leen dóorloo di leen tojloo ñoo ñu war nañu seetaat seen bopp bu baax jërë ngeen jëf